di euh, leen balu àq bu baax a baax a baax waaye itam di leen bal àq di ñaan suñu borom moom li nga xamante ni bi ngeen doon tàkk na de leeral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de da ko dooru TNT ba nag ñu ngi canal 33. leeral ay xibaar yu gaaw te woo. leeral TV di télé bu bees bu andi ay. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki xarit yi ñuy bàyyi xel fu waay mënti nekk ci àdduna wërngal képp ñu ngi lay ziar di la nuyu di leen dalal ci Leral TV di ñaan suñu borom moom mi nga xamante ni mooy borom kun fa yakun mu may ñu lu nga xamante ni rek moom mooy euh, mbégte ak bànneex jàmm surtout ndax Sénégal jàmm rek la ñu xam te jàmm rek la ñu bëgg te jàmm rek moo fi xaj itam. ndax tubaarkàl la nee naa euh, li nga xamante ni moom mooy euh, dul jàmm lu dul jàmm jàmm rek a ko gën kon dañuy ñaan suñu borom moom mi nga xamante ni mooy aji mayekat bi lu mu lu mu ku mu may da ngay am ku mu xañ tamit da ngay ñàkk yàlla bum ñu xañ li nga xam ni mooy jàmm donc di baalu ñëpp àq si euh, li nga xamante ni moom mooy weer bu barkeel bi nga xamante ni si lañu génn muy weeru koor ah ñuy ñaan suñu borom nangul ñu suñuy koor Eh, lepp lu nga xamanteni ni nañ ko ci wéru koor bi suñu borom nangul ñuko waye item itam di bal ñepp ak eh, tubarkàlla yeen yi nga xamanteni ni safo di li nga xamanteni ni mooy TV ak leeral point ak ci suñu plateforme yi Facebook eh, fi nga xamni moy Instagram mais aussi fi nga xamanteni rek mom moy YouTube ñi nga xamanteni ni ñu ñuy bay xel partout dans le monde ñu ngi leen di kontaane bu baax baax di leen ñaanal yeen ñepp jamm ak salam ak xéewal wéru koor nak soko déggé ñu wax ko nak dafa di wér boo xamanteni jaamu yàlla gi naam bis bu nekk la waaye weeru koor daf ci bokk nag weer boo xam ne weeru bénéfice la weer la boo xamante ni tamit euh, nit yi dañu si gën a farataal li nga xamante ni mooy seen jaamu yàlla ndax nag day yàlla bu demee ba nga xam ne danaan weeru koor tëj naa li xamante ni moom mooy moom mooy ma tënk naa seytaane kon loolu dafay firnde ni doomu aadama bu ci nekk rek war nga ci góor góorlu ba sa digg ak sa boroom nga mën ci liggéey loo xamante ni euh, ëllëg

si li nga xamanteni mom moy eutu leral bu nga xamanteni rek doon na fi am euh, durant weer bi yep vraiment ñu ngi leen contane ñom ñëpp di leen ñaanal suñu borom def ci ñom jamm commencé ko ci PDG commencé ko aussi ci euh, DG ak ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo coordination bi ci lo Mamadou Sam ñi nga xamanteni tamit ñom ñooy les techniciens ñom ñëpp ñu ngi leen di jaajeufal ci émission bu mag bobu nga xamanteni rek mom mo nekkon euh, li nga xam moy eutu leral donc dañ koy jéxal en beauté aussi si diine lañu koy tàmbali woon éviter nañ fi ku nekk ñu ñëwoon fii waxtaan si ah daal di rek euh, sottante xalaat waaye tamit delloo suñu xel ci yàlla ak su mag ñu baax ñi nga xamante ni suñu borom may nañu ko ndax chance su Sénégal mooy mag ñu baax ñu fi tëdd mag ñu baax ñu fi tëdd nag mënoo lim wala boog booy tàmbali lim faaw nga wax Cheikh Ahmadou bàmba yàlla nañu ko yàlla fayal tubarkalla euh, euh, ñu ñëwaat nag rek ci waxtaanal ñi nga xamanteni rek ñom ñoy suñu mbokk internet yi ak téléspectateurs yi ci li nga xamanteni rek xeyna mom moy mooy jeexintalu koor waaye dañ koy def muritement rek dañ koy def julitement rek parce que murit mom moy nekk doomu julit donc euh, loolu lañuy def ak yeen mu nekk euh, korité boo xamanteni dañ leen koy offrir histoire de ne pas terminer le mois ak euh, li nga xamanteni rek moy de la musique comme d'autres comme mën nañoo wax ne bonul waaye itam ñu terminer ko en beauté

mouridisme ñu mu doon loo xamante ni ñoom euh, euh, am nañu ci am euh, xam-xam bu baax a baax boo nee Serigne Saliou Samb macha allah sa xel tubaakal la am na fu muy màcc jëm donc moom lañ fiy àndal ak ki nga xamante ni tamit moom mooy Boubacar Konaté moom itam mi ngi fi waaye itam am nañu fi ki nga xamante ni tamit moom mooy Pape Samba Thiandoum moom tamit jëwriñ la ah dinañu waxtaan ci li nga xamante ni rek moom mooy korité nan lañu ko doxalee waaye itam duñu du ñu jeexal ci suñu li nga xam ne mooy spécial korité bi te du ñu wax li nga xamante ni moom la cheikh bi daan jeexalee korité ni cheikh bi daan woore xëy na ni cheikh bi digganteem ak Serigne Saliou lan la ca daan def ci jamonoy koor nan la ko daan jeexale yooyu yëpp ndax ñu fàttaliku rek li nga xamante ni moom mooy 17 avril yàggul dara waaye itam fàttaliku bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy cantaku ni ci boor bu mu mënti doon weeru koor dafa bokk si li nga xamante ni rek ñoom dañ ci daan def li nga xamante ni moom la leen seen euh, guide religieux daan digle mooy di togg di joxe waaye itam saxoo di jaamu yàlla bu baax a baax a baax ñu tàmbale nuyoo bi nag ak ki nga xam ne moom mooy sëriñ Saliou sàmb salaamaaleykum Serigne Saliou. waaleykum salaam wa baax yi min acheytaani fi kulli majlisin wa fil awtaani هبادة اتبعت بسم الله وهو كفاني يأس من ملاهي وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور صل وسلم واتبع سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكر به المقدمات ربيا وشرح بها صدور من تحلموا شرحا به لا تحتريهم سلموا بك سرين تباه mbokki jullit yi waa réew mi bitim réew ñu ni topp ñëpp ci leeral TV noo ngi leen di nuyu di leen waxal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo jiital ci nuyoo bi nag ak siyaar bi ñaanalaat seen Maodo Muntaxa mu yàgg fi te wér xanaa yi mën naa la Serigne Touba ak yoon wi ak lislaam bi mu yeggale ko ci sagoom ñaanal ko it Serigne Seexum Serigne Saliou mboolem njabootug Serigne Touba bi yëpp. waaye di siyaare nag tey nuyu bu baax a baax suñu sang bu tedd bi soxna Aida Saliou Thioune di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko ñaari guntam yu tedd ya liggéey yi sëriñ bi teg ci ay loxoom mu yeggale ko ci sagoom te nu ànd ko ak moom waaye itam maa ngi ndokkale jullit ñëpp ci weeru koor wii nu génn ci jàmm ak salaam di leen ndokkale itam ci bisub Korite gi nu tàbbi yeggale ko ci jàmm ak salaam di ñaan suñu borom nangul di leen jéggulu di leen baal àq te di leen ko baal di ñaan lu ci waaye defoon ci jàmm yàlla rek sama borom nangu ko te jégg nu lépp lu ci rëcc rëcc waaye maa ngi siyaare soxna Fatima ñu ma bokkal plateau bi sëñ Saliou tey tey noo noo noo noo jeexalee ko gi tey ci bi nga xëyee noo def. waaw damaa bëggoon sama jëwriñ universel yi. waaw jëwriñ universel Boubacar Konaté mi ma feggoon. Mm. di borom xam-xam wax nga ko léegi. Mm. di ko xam ne bokk moom plateau saa yi ma ko defee sama xol day sedd. Mm. dana ma wóor ne dinaa yokkuwaat ci ab xam-xam akub taalu bi. te loolu yi mooy daal ñuy seetaan ñëpp ñaanalaat ko sëriñ bi dolli ko kàttan akub wér. bayit liggey bi mu nek te liggey di liggeyal serigne bi mu yeggale ko sagom mm. waye sama jeewri mi di tiandu mi tam mm. loolu yi wax ci mom mm. te diko ñaanal itam sun borom yeggale ko sagu sama li yene yep mo man ko waye kenn feggol moy jeewri musa musa Ñang musa Fall Ñang di ko sayid bu mag bo xamni ni kuréelub seen becc bi ci gëna man xasaayit mm-hmm. da ca bok mom sax faset bari la boole ni mu mënee xasaayit mm-hmm. non la mané bak serigne salih mm-hmm. Ah, waaye jëwriñ la itam nag boole ci ci wàllu liggéey bi moom noo ngi koy siyaar bu baax itam te di ko bëggee eh, damaa xëy ni lislaam wax rek mooy soo xëyee bisub korité na nga njëkk a yëgal sa bopp ni wari nga maanaam bala ngaa dem ca jullikaay ba lekkal dara doonte tàndarma la wala nga naan kefe ngir yëg ni wari nga loolu mooy safaanu tabaski tabaski moom boo xëyee dañuy bëgg bu lekk dara fii ak ngay julli ji ba ñëw boo ma nee dogee ca resu sam xar mm. loolu lañ gën a sopp boo ko mënul loo rek baax na mhm. waaye safaanam nag mooy korite loolu laa def daal di yëg ni tey feetuk lislaam la mhm. ndax yàlla na may feet ginnaaw bi ñu dugalee ci weer wi nekkoon mhm. ba génn ko kon ak cant rek laa xëyee moom laa gontoo yendoo ko itam di ñaan fanaanoo ko <laughs> di ñaan fanaanoo ko <laughs> alhamdulilah sëriñ Saliou ñu ngi lay euh, bëggee yow itam bu baax a baax euh, di kontaan euh, si yow ca ñu teb si ki nga xamante ni moom mooy Boubacar Konaté moom itam di jang kat di waxtan kat bu mak moom itam xam-xamam kenn dootu ko natable sëriñ Boubacar ñu ngi lay ziar. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdu wa shukru li rabbil alamin wa salatu wa wasalaamu ala ashrafil mursalin salli ala sayidina waliyina hudwatina habibina shafiina wa alihi wa sallimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mboolem seen mbokki internet yu leeral TV di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di nuyu Serigne Cheikh Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi te di nuyu mbooleem njabootu Serigne Touba gépp waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan di ndokkeel mbooleem seen jullit ñëpp. ci weer wu tedd wi nga xam ni ci la ñu génn tey ñaan suñu borom nangul nu ko waaye nag di nuyu ñi nga xam ni ñoom laa bokkal plateau bi te di ci jiital soxna faatiment ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Mm-hmm. di la baal ak di la baalu ak di ñaan suñu borom boole ñu ñun ñëpp jëggal ñu te nangul ñu suñu koor. Mm-hmm. ñoo ngi nuyu itam universel Serigne yu Samb di rafetlu ab xam-xamam. ndax wax dëgg yàlla ni mu ko waxee ci man rek noonu laa koy noonu laa ko koy delloowee te loolu moom ñëpp xamandoon nañu ko kon Serigne Saliou yàlla na liggéey bi gën di jëm kanam lépp loo ci yéene suñu borom defal la ko noonu laay nuyoo jëwriñ Moussa Fall ñang mi di jànkatub xasaayit bu mag te xam naa ni bu ñu duggee ci jotaay bi dina gën a leer ak jëwriñ Papa Samba Papa Samba Thiandoum ñoo ngi sant bu baax nag euh, tey ñaanal soxna Aida Saliou mu yàgg fi téwér ànd ko ñaari buntam yu tedd yi soxna Batoor saaliw ak soxna Adja Saliou mm-hmm. jërëjëf euh, soxna Fatima jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax euh, Moussa Fall moom dafay ñëw si kanam léegi incha allah moom nuyoowam day spécial alors ñu teg si ki nga xam ne moom mooy Pape Samba Thiandoum moom itamit di jëwriñ bu soxna ay maa ngi lay ziar bu baax a baax Eh, di la nuyu di la dalal si plateau bi aussi. Mm-hmm. Ah, di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ñu ngi nuyu képp ka nga xamante ni sa borom dogal na ngay suivre émission bi fu waay ne ñu ngi lay nuyu te di jiital nuyo bi mm-hmm. yow mi ñu fekk di soxna Fatima mm-hmm. te nga dalal ñu lu nuyu te universel Serigne Saliou Samb di ko jox wayam universel Boubacar Konaté den jox sen waccu wàccuwaay ay Moussa mi koy siyaare diko jox waccu wayam ngi santat bu baax di nuy mbollem sen tay santat bu baax jëmm ji di soxna Aida Saliou di jëmmi sëñ Béthio ñu ngi koy ñaanal sa borom yàggal ko fi te mo and ko wér and ko ñaari bunte mi di soxna Batoor ak soxna ja saliw ñu leen di ñaanal te ñaanal bépp mindeef bi nekk ci kaw suuf sa borom yàggal la fi bépp kilifa ci réew mi ñu ngi lay ñaanal ki ci gën a mag ba ci gën a law ñu ngi lay ñaanal sa borom yàggal la fi te nga wér te and ko sa njaboot ñu ngi leen di nuyu baax te di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf jërëjëf.

ya san bushaarati bin ayati wasu wari bishad bi kauni ya cadal musini suwari ya san bushaarati bin ayati wasu wari. لشغاب كوني عبد المحسن سواري لشغاب كوني عبد الله في كبيلة قس وليس عبدي أن تبت من خواري من قد يباصرني في سري والجريب إنسان ساب ساري فجادني يا غالي لبي السرار بلا عدا في ترى بفن تفاك داري فجاتني أغاني لبي بسرور بلا عدا في تراب فانتفى داري فقلت والخلق مني تيب بريدا عن كريم باتي يسن ذي القدر غتوت للغفير غفار من عادي وعنه والدواني قد جاد في سفري أسلمت وجهي بدين نبي أبدا بما لي ترى في مكسي وفي سواري له سكري في دار سلام وفي توبى بذكر عاكي من غد نفى دراري زلت بعد عهد بردا لوما ألا يلاقياني يلاقيني شيئا من الغرر وأن يسلمني من كل ما لقيتم bil mustafa man bi maati wa salati jeuf seigne jëf go ma sha allah ma sha allah magnifique sha allah vraiment doyna war dal daal. Ah, ah, waaw c'est ah, extraordinaire. ma doyna war dal na waar daal. waaw lool. da di xasiday borom touba mom xam nga foko meunti jang ak kuku meunti jang day ya. neex. Wow, ku ko mënti jàng ak foo ko mënti jàng mënul def lu dul neex mhm. rawatina nag koo xam ne am na maîtrise bi ci voix am maîtrise bi ci kàddu gi di la koy jàngal sa yaram day mhm. gi ne kon alhamdulillah, ñu am yaakaar ni jataay bi mën naa neex macha allah jërëjëf euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne Moussa Fall ñaw yàlla na baat bi wet Serigne Saliou dañuy waxtaan wi ci ponk bu njëkk bi nga xamante ni moom la ñu waxtaane mooy koor gi nga xamante ni jeex na ñuy seetlu ni koor bu bu amee rek jullit yépp dañuy daldi rek mel ne musuñoo nekk jullit daanaka boo dee seet ndax ñi daawul dem jàkka dañuy faral jàkk yi jàkka yi commencé fees ñu ñu ñu ñi daawul saraxe di saraxe néew ju doole ji boo dee seet ci weerum koor la ñuy gën a gis seen bopp kësu su koor amul mu mel ni dañuy xaar weer wi ngir jëf-jëf yu baax. Mhm. noo gisee li nu mel Serigne Salim. waaw ah, jërëjëf soxna Fatima loolu day nga seetlu ci mbokk jullit yi ci weer bi bu ñëwee. ni muy yokkee seen jaamu yàlla. Mhm. day mel ni duñ ko ni defee ci yeneen weer yi. Mhm. li ba ci njëkk wax nag mooy looloo jaadu. waaye nag waruñu ko yemale nag ci weeru koor rek. ndax yàlla ci jëm boppam bi mu nuy sàkk nu nit ak ginne dinu indi ci kaw suuf. dara daa taxul mu sàkkoon lu dul rek nu jaamu ko kon amuñu fi benn seconde boo xam ni lu dul jaamu ko rek tax nañ jox na ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbudooni maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutximooni inna allah huwa razaqu sul quwatin matin kon jaam moom jaamu yàlla rek tax nu sàkk ko kon am temps ak heure waxtu bu mu koy jagleel ak bu muy bàyyi day xam ne kon boobaa la ko war bana ko Hmm. bu ko nak euh yalla nak day bëgg bu weeru koor jotté lo doon jaamu yalla nga yokk ko tan li tax moy weeru koor day weeru spécial hmm xam ni weeru promotion la mm-hmm. ci julit bi sun borom nee jëf yu ngeen jëf bu dé ben la suma ko nango nak tak juroom ñent muy fukk mm-hmm. man jaa bil hasanati fa lahu xasru am saaliha mm-hmm. wa man jaa bi sayiati falaa yu gisaa ila mislaha waaye nee na bu weeru koor ñëwé nak jenn jëf ju nekk dinaa ko ful ba muy juróom-ñaari téeméer sept sept cent fois ba yegg sax ci ne baa ma puuli ko num ma soobee ba mënee su ko wàññeeti mooy wallaahu yu daaxi ku li man ngi saa ba noppi itam ci weeru koor yi kon loo ca def lu nekk day ëpp doole defoon ko ci waneen weer wudul weeru koor loo doon def ci aw yiw ci yeneen weer yi loo ci am lu ne boo ko defee ci weeru koor li nga ci am da koy ëpp loolu li ko indi mooy weeru koor daa am mission bu ko indi ci àddina moo tax mhm. mission boo xam ne missionnaire la moom weeru moom missionnaire boo gis nag am na mission bu muy def si am na fu mu koy def si mhm. am na fu mu ko sibile mhm. moom nag mission ci biir nit la xam naa bu ñu duggee ci biir waxtaan dana gën a leer mhm. eh, mission boobu bii nag missionnaire foo ko fekk day yor ay jumtukaayu boppam yoo xam ne ci lay doxale ak am mission koor nag bokk na ci jumtukaay yi mu doxale mission mooy day weeru yërmande moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na weeru weeru yërmande la gis nga sax ñetti fukki yi dañu fukki yi njëkk yi day tegtale maxfira njéggalug suñu borom waaye fukk yi ci digg bi day tegtale rahma mooy yërmande suñu borom mhm. waaye fukk yu mujj yi day tegtale xet kon mi na naar mooy ba tey yërmandeem rek la mhm. mooy ñi muy sa te a ci yërmandeem mhm. ndax aljana ku fa dugg yàlla wa udxilal janata faqad faasa waaye sawara itam ku ca tàbbi suñu borom la kon yërmandeem rek ci mën a musale kon gis nga weer wi lim ëmb ci yërmande eh, weneen weer daa ëmb yërmande bu ñu toll lu tax mooy lan mission bi muy def si jumtukaay boobu nu yokkal ko ko. Mhm. ba moom lam ca yor keneen du ko yor bu duggee ci ban mission nag la weer doon dox si weeru koor wi. Mhm. Mhm. dana gën a leeral euh, waxtaan boobu. ba it liy gën a sawarloo nit ñi itam. ci boo gisee ni ñuy mënee jaamu yàlla ci weeru du ko mën a jaamoo yàlla ci lu dul weeru koor. loolu itam ci mission weeru koor la bokk. ndax nit ñi liy dox seen diggante jaamu yàlla seytaane la. ndax suñu borom nee na ñeenti noonu yi ngeen am. ñeenti noonu yi benn noonu képp la. seytaane ñett yi ay jumtukaayam lañ mhm. fi ne yàlla wut la wunu benn nombre seytaane mhm. ndax inna seytaana lakkum xadduwun mu la wax mhm. tekke ne fattaqi soo xadduwaa seytaane seenum noonu la jàppe leen ko am noonu moom doo nga la yàlla wax ne jàppee ko am noonu yemut ci seenum noonu la waaye dana jàppe leen ko ko innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir seytaane moom na bokk na ci jumtukaay yi muy xeexe nit ki mooy bakkan muy bànneex muy àddina falaa taqurannakum alxayaatu dunia wala yaqurannakum billahi alxaruur bakkan itam mhm. bok na ca motax tax bu mu wax ni nga moytu sa bakkan mhm. ndax fa inna nafsa la bisu bisu, bisu mhm. digelinya lay digal lu ñaaw rek la bisu ci rek lay def wa amma man xaafa maqama rabbihi wa nahana nafsa hanil hawa fa inna jannata hiya al mawa euh, ñettel bi nak ginnaw bakkan ak moy banex al hawa al alhawa afara ta man taqasa ilahu hawa, wa adallahu allahu ala hilmin wa xatama ala samihi wa qalbihi wa jaxala ala basarihi xishaawa mm-hmm. fa man yahdihi min ba'dillahi afala tasakkarun yàlla nee na ku ci def sa bànneex muy sa borom di la gide mm-hmm. lam lay mujjal mooy réeral la ci yoonu yàlla nee na sànq la ci xam-xamub yàlla kaske sa xol nag leer dootul dugg mm-hmm. kon kon yooyu jumtukaay saytaan ne ko yor di ko sànni nit ñi saytaan nag benn yitte dong la am mooy bu nit ñi def li tax yàlla indi leen fi muy jàmm ko moo tax waxoon na ko yàlla dinaa leen féete kanam féete leen ginnaaw ci ci ndeyjoor ak ci càmmooñ ci kaw ak ci suuf mm-hmm. ngir lan wala tajidu aksaruhum saakiriin laa ko fa dan na lahum siraatakal mustaqim summa laa ta'tiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ilihim wa laa tajid aksarahum shaakiriin seytaane moomu nag nga xam ne fu mu mi ngi liggéey mm-hmm. wa inna shayaatiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim mm-hmm. fu toll yit mi ngi déeyante wax yu nga koy tuddee waaye bu dee ci seytaan da nga naan mi ngi déeyanteeg ay ay mm-hmm. dina yebal ci gars ngir lan gàllankoole ba duñ jaamu yàlla bu koor jotee dañ koy jéng léegi jéng googu nu koy jéng nag nga xam ne amatul activité moo tax nit ñi ni ñuy sawaree jaamu yàlla ci moo tax yonent bi ne isaa daqala ramadaana mm-hmm. nee na futtixati abwaabal janna mm-hmm. wa xulixati abwaaba jahannam waaye wa sulsilati sayaatiin mm-hmm. waaye foo futtixati abwaabi samaa nee na saa yu weeru koor wi teroo rek suñu borom tijji na bunti àjjana yëpp mu libre waaye tëj na bunti sawara yëpp waaye tijjil nañu juróom-ñaari bunti asamaan yi ngir barke moo tax nga dégg alxuraan la fataxnaa alayhim baaban min as waaye moo tax mu ne wala wa a amano ahlal quré wa taqaw la fataxna alayhim barakaati min assalaam léegi mhm. dégg waaye jéng nañ seytaane mhm. léegi nag loolu nag mooy tax nit ñi activité bi ni am ci weeru koor duñ ko am waaye fekk na nag yërmande yàlla la ci noonu ngir lan li tax a jug koor bu waxtaan bi gën a ubbi ko mhm. mission bi mu yor mhm. ba yàlla andi ko ci àddina mhm. mu doon missionnaire ci biir jullit ñi am lu muy liggéey si liggéey boobu daa tax jumtukaay yi ko yàlla jox ci yërmande ak yàlla ni mu tënke seytaane ak lépp luy gàllankoor yi defu ko ci waneen weer wu du weeru koor ngir bëgg lan bu weeru koor jàllee ñu am résultat bu mag a mag boo xam ni kenn ku ci nekk da nga ko mën a sentir soxna Fatima jërëjëf am na solo torop te euh, ni expliqué waaye euh, ki nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, Pape Samba dama am rek laaj boo xamante ni pour ñi nga xamante ni xëy na jege nañu ñi nga xamante ni ñooy cantaaku ni xam nga diggante Cheikh Béthio ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Saliou hmm. jege woon na jege yantoo goo xamante ni tey yaakaar naa ni lu lu weesu ak nettali leneen xaju ca nettali gi mooy li ñuy mën a jàng ci histoire si ñi ko fekkee Hmm. ak si nit ñi nga xamne ay témoin lañu ci maanaam ñi nga xamanteni ni di seen digënté ñom ñaar daan nañu euh, euh, euh, mëna wax ni lamb nañu daj gis nañu ak yu mel am ba li am yépp am ba Cheikh Béthio am liko yalla may yépp sha allah ak ni mu fi joggé jamono ji ni hmm. Cheikh Béthio nekkatu fi xeyna na ni gis nañu itam ni perpétrer liggéeyam moy la leen di yobbu ca ñom lamu leen jangalon nañ hmm. ngeen dundé wéru koor gi

sëñ Béthio ak Serigne Saliou mm-hmm, sen and mm-hmm. jitu na sun juddu ci limu meuna jangale mm-hmm. ak Serigne Saliou da tok ak sëñ Béthio di waxtan ak mom ci digeunte Serigne Touba ak Cheikh afal ne ko ñom ñaar fañu andé du fi waye ba may wax lolu dama sey djublu won la sama digeunte ak yow kon loolu mbiru biir la waaye biti bi yàgg nañ koo jàngale nit ñi di ko dégg 46 la dajeek moom ca toolu waajuram gu tedd ga mu ànd mom moom ba àdduna ñëpp xam ni lii moom jëfam la jëfub Serigne Saliou la Serigne Saliou xames ko day jafe ndax Sëriñ Tuubaa waxam ku ne dégg na ko ne ba mu amee lépp ca yàlla moom ca la doon Saaliw Sëriñ Saaliw nag ñun moo ñu digal ne nañu ak sëñ Béthio kon soxna Fatima nit booy seetlu dundam temps la ci temps la nit di dund temps boobu ci ngay def lépp ba ci weeru kook wi nga ko laaj temps wala ko may ngir jaam gi mën koo def mhm. boo amul temps gi doo ko def mhm. kon doomu ma ci temps rek lay dox mhm. jàngale na sànq balay naan iblis dañ koo téye kon daa mel ni temps bu mu mënoon doxe temps boobu dañ koo yeew ba mënu ko kon nit ci temps rek lay dox sunu temps woowu nag gannaaw bañ doone ay murit ñu doon ñu jébbalu Sëriñ Saliou daf ñoo ne yéen ñii de digal naa leen na ngeen ànd ak sëñ Béthio te def ko muy seen yitte yitte bu jaam doxi rek aw temps wa mag ko may kon ñun sunu temps daf ñu ko tënkal ci sëñ Béthio digal naa leen na ngeen ànd ak sëñ Béthio tàmbali leen ci moom te yam ci moom te sàkku am mbégam ak sàkku am ngërëmam xam ne lum leen wax maay ki leen ko wax lum leen digal maay ki leen ko diggal lim leen aaye maay ki leen ko aaye hmm. lépp lu mu wax bakke new ci àdduna new ci léppi Sëriñ Tuubaa la ndigal loolu lañ jot ànd ak jëmmam ji diir ñu ànd ak jëmmam ji moom sëñ Béthio

dañoo laaj waa baax Barsàq ana loo leen bëgg ñu ne ñoom wàccaat ci kaw suuf am am yiite rek ba teewlu ko suñu borom ndax foofu seen temps écoulé na ngir mën a jaamu sunu temps woowu nag ñu def ñu koo tënkal ci ñu fonk jëmm ji di sëñ Béthio fonk ndigalam tàmbali ci moom te yem ci moom lum ñu wax kenn newu ci àdduna newu ci lépp Sëriñ koor gi ñu war koo dund comme bépp jullit na ko Sall Samb waxee waaye moom daf ñoo jalax faf ñu xam ni ngirub dund la ndax bu fekkee weer wee tax ñu baax bu jàllee ñu mel na nen daa mel ni kon la taxoon weeroo wàcc feeñul ci jëmm yi moo tax mu lal daara yi ngir ma googu ci loolu rek lañuy sax duñ ci jóg weer wu ñëwee day gën a baaxal sunu dund rek waaye ca loolu la ñuy fekk te bu jàllee teyit ca loolu rekk lañuy fekk amaana nag yëf yi léegi moo décentralisé wu naan côté bi santé wu ñu jëf yeeg yu ni mel soutien bi comme ni mu ko waxee waaye boo delloo tuuti tàbbi boob bi dem ci jëmm ji ñuy naan Soxna Aida di jëmmi Sëñ Béthio boo gisee nu mu teralee weer wi xam ni kat loolu am na lu mu wane ndax ci ndimbale rek la nekkoon mhm. weer wi doo dugg këram du sax weer wi waaye moom day dundam doo dugg këram bés bu set te doo dégg ñuy wàcce kaamil mhm. doo fay yendu suba ba ngoon mhm. sans arrêt te doo dégg xasaayit Sëriñ Tuubaa yi ndimbalam fépp la lare moo waral ñun sunu dund yépp li ñu war mooy ñu jeexal ko ci mbaax jeexal ko ci defaru ndax moo taxoon weer wi tëru temps woowu nag jaam bi am Sëriñ gannaaw ba ñu ko toppee daf ñu ne yéen de yar naa leen ci xitma ci liggéeyal ko ndax moom nee na ba mu saytoo àdduna moom Sëriñ xam na ni jotay lépp ndax jot a waral émission bi di jot a tax ñuy tudd ku ne nee na ba mu saytoo loolu nee na ñaari ñaari jëm yi la ci xool mooy américain bi nee na moom xam na ni temps mooy lépp dañ ci wax de nee na américain bi xam na ni temps mooy lépp mais li mu jëndee temps moo baaxul ndax moom temps ci alal rek la ko jëmee fii daal liggéeyal ñu fay la time is money nee na ma gis ni liñ jëndee seen jot baaxul nee na ma war leen fa ginnaaw dem ci anglais bi. mom jëndul temps waaye seconde la jënd mais pas n'importe quelle seconde mhm. seconde buy jariñe mhm. néna ma gis ni seconde bi mu jënd yëpp ci solution rek la ko jëmé mhm. waaye solution bi ci aduna la nee na man ca laa wàññeeku man jënd ab noqi noyyi nee na noyyi googu nag li ma ko jëndee mooy ko sama borom ñi ci ànd ak man nak ci xitma rek la len bo ma waral mourid ci jëf rek la war nek mourid weer wi ak lépp lu mënti xew warul soppi aw doxinam da ko cee war a fekk jëmm ji ñu àndal di sëñ Béthio moom ci loolu lañu yàgg sëñ Béthio moom nag wax nañu ko sànq laa tafan shay bi xay isni bu leen jëf dara soantek ndigal xay sul saa yu wàccee na ngeen ko jëfee te Serigne Saliou moo ñëwoon tàmbal leen ci moom te yem ci moom te fonk ay kàddoom te kàddu gi mu ñu mujjee digal mooy digal naa leen na ngeen ànd ak soxna Aida te fonk lool ay kàddoom te ànd ak moom ci liggéey bi kon ci ndigal rek lañuy dox sunu temps moom amuñu ko droit dox ko ci leneen sunu temps ñu ngi koy dox ci biir ndigal kon ba tax na euh, loolu laa am ci lu ma la mën a nuyóogum li nga ciy tontu jërëjëf waaw jërëjëf mm-hmm. euh, euh, sëñ Pape leer na waaye itam nekk na loo xamante ni mën nañu si aussi jëf njàngat ayca damay ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, Boubacar Konaté mu mel ne waxtaan bi ferenkulaayu ne te tënku na ci diggante li nga xamante ne mooy euh, ndigalu suñu borom ci weeru koor mm-hmm. at mi fukki weer ak ñaar yi nga xamante ni moom la ñuy am am nañ mm-hmm. ci benn weer boo xam ne dañoo war fësal jaamu yàlla gi mm-hmm. waaye itam tënkuwaat na maanaam dessiné waat na li nga xam ne mooy waxtaan bi ci ñaari jëmm yi nga xamante ne tase woon nañu ba tax tey li yëpp xew mm-hmm. parce que tey mën nañoo ni lu bëri am na senegal xëy na bu ñaari jëmm yi tasewul woon xëy na dañuy naan ay fu ñu koy jëleeti wala mm-hmm. ay nu ñuy nuñ koy lijjantee mm-hmm. waaye heureusement que ñoom ñaar suñu borom def na ñu tase tase boobu ñu tase nag dafa indi ay mbir yu bëree bëree bëri te ba tey ci biir laaj bi xam naa yow di nga si ñëw ci ci ni nga xamante ni moom noonu la ko doon dundee moom mi nga xamante ni moom mooy Cheikh Béthio weeru koor naa mhm. peut-être di nga ma ci gën a di nga ma ci gën a ñëwal ci waxtaan jërëjëf soxna Fatima mhm. maa ngi rafetlu kàddu yi fi jot a jaar ci diggante jëwriñ universel Serigne Saliou Samb mhm. ak jëwriñ euh, pap Samba Thiandoum di rafetlu sa laaj bi tey bëgg lool ci euh, sëñ Moussa jëwriñ Moussa mi ak xasaayit yu neex yi nga xam ni moom la yëkkati mu tooy xol yi wax dëgg yàlla sedd xol yi Euh, laaj bi nga laaj nak mom dafa melni ni fay dugg ci contexte am ndax wéru koor universel mi ngi la koy wax légui wéru koor dafa am mission bu ko andi ci kaw suuf sun borom mo ñëk sakal nit mission wax ni wa maa jinna wal insa illa liya'budun sakku mo nit ak jinna ludul ñu jamm ma da dàq lepp doora saxal lool nak dafa reel mission wu doomu adama moy jamm sun borom mission bobu nak nit am ci jamm yalla sun borom dafa sakkat diine muy yoon wi ñuy jaar ngir jaamoo suñu borom ci biir diine suñu borom wutal ko ay keno alayhi salaatu wasalaam waxal ko boppam daal di wax ni diine euh, bu doon ab tabax la yii mooy euh, shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mm-hmm. salaati waaye wa ita i zakaati gis nga koor day taxawee ñetteelu ponk bi mm-hmm. koor googi ci biir lislaam dafa am mission bu muy dox si ci doomu aadama mm-hmm. lan la koor di def ci nit mooy mission bi diine am ci nit ngir nit mën a jaamu boromam jaamu gi war a am résultat mooy baaxal doomu aadama defar ay jikkoom euh, koor daf cee daf daf cee doon kenn gu rëy moo tax sunu borom euh, alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni innama buxistu li utammima maqaarimal axlaaq man sunu borom dama biir ngir lenn képp mooy ñu dikk ngir mottali si jikko yu rafet yi kon ci loolu lay la lislaam di dox fi mu nii képp koo xamante ni euh, mi ngi sax ci di jaamu yàlla te jikkoom rafetagul na revoiraat ni muy jaamoo suñu borom ndax diine objectif am ci nit moom mooy day jàmm suñu borom lan moo tax nag nit soxla loolu soxla koor mooy nit daam yu ko yàlla binde sëñ Saliou wax na ko léegi suñu borom dafa bind nit jisme muy l'homme en chair et en os mm. bind nit ruux muy euh, ak leer bind nit nafs dégg nga alxuraan ni mu koy waxee wa shamsi wa duhaaha wal xamari isa tallaha wan nahari isa jallaha isa yaxshaaha wa ma banaaha wa ma taxaaha wa ma sawaaha loolu benn composant la ci nit waaye ruux it ruux fa isa sawaytuhu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidin loolu leer la bu bàyyi ci sunu borom nit tamit يب يرم لا الله قد خلقنا الإنسان من سلالة من تين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا نطفة حلقة فخلقنا الحلقة مدقة فخلقنا المدقة عداما فكسبنا الحسام لهما ثم أنسحناه خلقا آخر فتبارك الله سنبرم دفا سكن تينيت بدين نت جسمم amul problème cosaanam ban la ak suuf bu nit faatoo fa lañ koy delloowaat bu dee ruu euh, leer la gu bàyyikoo ci yàlla euh, al ar ruuxu laa yamutu du dee bu buñ naan nit dee na sax mooy dañuy tàqale ruuwam ak jëmmam nafs nag mooy li nga xam ne dafa nekk diggante jism mu yaramu nit ak ruux muy leeru yàlla gi nekk ci nit nafs moomu nag alxuraan nee na mooy tax nit di doon walliyu mooy tax nit di doon kàccoor ndax nafs la yàlla dugal ci la suñu borom defal capacité boo xam ni dafay dafay dafay dafay ñot di nit ki di ko jëme ci lu yàlla tere wala muy ñot di nit ki di ko jëme ci bëgg-bëggu yàlla alxuraan nee na nag combat doomu aadama dundam gépp ci loolu la tënku moo tax mu ne xadd af la xaq man zakka gañe na kan moo gañe mu ne ki nga xam ne nafsam mujj na koo setal ba mujj tàbbi ci lu neex yàlla waaye nag wax xadd ba man da saaxaa ki nga xam ne nafsam setul ci kaw suuf kooka nag moom perte na ak dundam léegi diine dafa ñëw nag ngir setal nafsu nit moo tax nafs nag day feebar ni jismu bii di feebare nga dem hôpital Fann wala principal nga xam dañoo séddoo nit ophtalmologie orthopédie du dëgg urologie cardiologie noonu la nafsu doomu aadama di feebare médecin bi faj jismu ni mu amee noonu la médecin buy faj nafs amee diine nag ay médicament la yoo xamante ni ni médecin bi di diagnostiqué nit defal ko scanner opéré ko wala mu jox ko ay médicament muy traitement à suivre ba yaramam mu mun cee amagu wér noonu la suñ borom nag di traité su doomu aadama ngir tegal ko ay comprimés yoo xamante ni su ko dee jëfandikoo day gis ay jikkoom day rafet loolu tax suñ borom lim déyle ci weeru koor bokk na ca mm-hmm. mooy su ngeen ko defee te mu nangu dafa am ay mandarga xam nga diñ li ñuy tuddee indice de développement mm-hmm. weeru koor bu nangu dafa am ay indice moo tax daf ni ba kutiba alaykumu siyaamu mm-hmm. kama kutiba ala lazina min xablikum lu mu ca teg laxalakum mën naa am su koor gi nangoo ngeen mm-hmm. yëg ci seen bopp taqwa taqwa gi day tax boo sañoon a wax lu dul dëgg boo wooree ba weeru koor gi jeex dootoo ko sañ mm-hmm. boo boo boo sañoon a jël yëfu jàmbur mm-hmm. boo we wooree ba weeru koor gi jeex dootoo ko sañ mm-hmm. boo sañoon a jiw nit wala nga yàq nit wala nga wax ci moom lu dul dëgg wala nga seere loo xamante ni wuuru la wala nga ñàkk a maanu bu koor gi nangoo jullit bu ci nekk fii may wax ak partie à partir d'aujourd'hui war naa yëg ni ragal yàllaam yokku na Euh, ñeme tooñ nitam wàññeeku na mhm. ñeme def safaanam wàññeeku na loolu mooy indice yi nga xamante ni dafay wane ni mhm. koor gi nangu na kon gis nga koor mission bi mu am ci nit mooy defar ko mhm. mission boobu koor am ngir defar doomu aadama looloo tax yonent bi bi ko yàlla bëggee wax yaa mën a woor yaa mën a julli yaa mën a asaka yaa mën a aj màkk yàlla day xam ne aaya bi day gudd xam nga boobu aaya day gudd suñu borom da koo tënk ci benn aaya li julli di jariñ ak li koor di jariñ ak li asaka di jariñ aj màkka li muy jariñ lépp dama koy tënk ci benn aaya ne la sa dëgg-dëgg yow alayhi salaatu wasalaam yaa rafet ay jikko moo tax mu ne ko wa innaka laxalaa xuluqin azimin léegi nag nit ki su demee ba euh, mission boobu suñ borom defal ko moo war ci réussir looloo waral nag sëriñ mat sëriñ am looloo waral daje sëriñ Saliou ak sëñ Béthio mm-hmm. mooy ñëw kon ngir dimbali doomu aadama mm-hmm. te sëñ Tuubaa da koo junjoon خاسيرة جسنج توبا موجي بند موي خاتو ماتي مونا جاتي بيل حاتي ميسيو اب سنج بيجامي سنج توبا تي جونيو ناخ دا فا واخني كتب الله تبارك وتعالى ان كاتب هذه العروف يجاور الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنه بعد هذا الحق المحقق من الحق المبين والله حلا ما نقول وكيل خاسيرة جي مالا يخ سخنا فاطمه كين مستغيس خاسيرة جي جي سنج Ken musta gis Serigne Touba gis xasida gi ndax ki ko gis gis xasida gi dafa fekk serigne bi teud melni lu ñuy tuddé néew ci bir xasida ga nak la Serigne Touba di wax ni ki teud melni lu ñuy tuddé na ngeen xamné lay mom du fi joggé ndax yalla far ci mom dé loolu waral al mama mama sarmadan wa bi baqaiya yasuru ahmada loolu mo waral lam tanhuni muqaddamatul muti. wa qad rafahtu bil baqa'i sawti en réalité li la sa bët di won ak li la Serigne Touba di wax ci xasida gi dafa melni kui lu opposé yow da nga melni kuy gis new sëñ bi ne la lii ngay gis ak li am ca dëgg-dëgg muy la réalité ñoom ñaar bokkuñu xasida gi moom la sëñ bi mujj bind ca ca jumla bu mujj bi muy phrase bi tëj euh, xasida gi nga xam ni loolu la sëñ tubaa mujj bind ci loxo ndeyjooram mooy bi jumla ji ma la wax sëñ tubaa dafa wax ni ki bind xasida gi araf yi ngay jàng yàlla dogal na ni dafa dafay sax ci kaw suuf nekk ci kaw suuf dëkkaale feek yàlla mission bi muy am nag mooy di leen xëccal njariñ ak di leen dakkal lor xam nga loolu mooy lan loolu mooy dox ci defar doomu aadama yi nee na yéenéem jooju mu amoon nag junjoon nañu ni Serigne Saliou mooy ki ko koy mottalil looloo andi wahab li al ilma asahiha wal amal asaaliha allazi yukammilun amal looloo waral lin xaadatil ujur wal masalih bi tayyi wal jazbi wa inni saliw sëñ Béthio nag résultat diine maanaam boo dajalee li julli di def ci nit ak koor ak asaka ak aj màkka ak dox mbokk ak saraxe ak leneen loo xamante ni da koy jaaree peut-être ci mbirum tasawuf ak mayuk sunu borom loolu lépp la dajale di ko def résultat ci ci ci ci taalibe yi loolu waral ah, lim la wax léegi euh, fépp foo xamante ni maanaam euh, doomu aadama dafa war a taxaw war faa defaru yar gim lay yar ci tërbiya dafay tax defaru googu des koy gis ci yow nga xamante ni résultat bi diine am moom résultat boobu lay indi mhm. di ci yar ndaw ñi looloo waral mu fàq daare yi mhm. looloo waral muy muy def ci ñoom xasaayit mhm. kii di jàng c'est un intellectuel c'est un ingénieur euh, jëwriñ jëwriñ Moussa Fall demul daaray alxuraan euh, demul jenn daaray xasaayit ci daare yi sëñ Béthio la ne alxuraan ji fekk ko si fa xasaayit yi fekk ko si fa mu mën di jàng alxuraan euh, xasaayit yi nga xam ne su ko dee jàng da ngay foog ni dafa demoon daara kon dafa mel ni mission bi koor am ci doomu aadama sëñ Béthio moom la taxawee saa su ne sëñ Saliou nag defal ko ay mayu rëy ci weeru koor su ne weeru koor cantaakoon yëpp seen xel day dem ci sëñ Béthio ak sëriñ Saliou xam mooy le le le le le Euh, septembre 1990. le 19, le 19 septembre. 1990 fii ci Mbuur di guddi leelatul xadar yi. Mhm. ci di weeru koor kon. di guddi gi gën ci guddi yi euh, ci ci ci waxi xulamaaw yi mm-hmm. euh, xaarifuuna billaahi yi ñëw jël gàmmu teg ko ci ko lool lool di leneen mm-hmm. xam naa beneen jotaay lool dana mën a leer mm-hmm. waaye moo muy kon guddi goo xam ne moo gën junni weer sëñ Béthio départ Ndakaaru ànd ak taalibe yi togg ay ñam yóbbul ko Serigne Saliou ñëw siyaare ko ko fekk ko fii ci Mbuur ndax Serigne Saliou daa yàgg Mbuur ba déggee ñu naan borom gote Mbuur ah, loola looloo ko waral keroog bi mu ko siyaaree bernde yi amoon na ay sëti alayhi salaatu wasalaam yu fa teewoon yaa ngi dégg keroog bi sëñ Saliou sëñ Béthio siyaare ba noppi sëñ Saliou dani ko mhm. sëñ Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko bis ni tey mhm. mu ne ko waaw mu ne ko ku la gis dem aljana ku la xam dem aljana mhm. sëñ Béthio ne damaa yuuxu keroog daan ne ko moo Mbàkke lu ma la defal ba nga defal ma lii sëñ Saliou ne ko Sëriñ Tuubaa bi ne man tekk mu ma dama ni Sëriñ Tuubaa daf laa nangule nu mësta nangule kenn kon loolu may la woo xam ne fu ñu tuddee weeru koor xel dem ci waaye nag weeru koor gii nga xamante li nga wax Qui euh, perpétuer la mission de Serigne Béthio Bédio. Aïda de de hmm. créer un groupe yoo xamante Qui ci mbokki le pays chaque jour que je fais jëfee hmm. au Sénégal Avec bitim Riou, diaspora bi maa ngi siyaare bu baax ah, sunu mbokkum taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi universel Ibrahima Seck Rouen bi ñuy dugg si ca jotaay bi mi ngi ma ni moom ak waa Rouen ah, ña nga ca foofa di suivre émission bi waaye boo demee fu mel nii ay Bordeaux hmm. ah, ñoom sëñ Saliou Bodian ñoom hmm. yaa ngi dégg jëwriñ universel Mbow ñoom jëwriñ universel Moustapha Mbow nga dem fu mel ni Paris hmm. fekk fa ñoom jëwriñ universel polyvalente Oumou Balde ñoom ci kaamil yi soxna yi nga ñëw Sénégal fekk fi kuréelu fajar gi chaque jour que je dañuy dañuy jàng alxuraan alxuraanu fajar kuréelu fajar ci kaamil ak kuréelu fajar ci xasaay te weeru koor ak lu dul weeru koor waaye weeru koor bi yëpp bis bu set soxna day togg ay bernde yóbbu ko ci daaray alxuraan yi maa ngi siyaaree Euh, buntum yu tedd yi soxna Batoor Saliou ak mhm. soxna Adja Saliou mhm. waaye di siyaare universel mbéy yi njàppandal mhm. ak waa engagement détermination ñoom universel bu sa jaxate ñoom ci liggéey bu am solo boobu nga xam ni moom la ñuy liggéey di ku dugal ci biir daaray alxuraan yi ak daaray xaside yi bis bu set te bërki dem rek moo ci moo ci mujj kon loolu yëpp ak hôpital yi ak prison yi ak hôpital yi yi kon lii mooy li nga xamante ni bokk na ci ni mu dundale weeru koor wi euh, soxna Fatima foofu rek la ñuy wàcce suñu kaddu ci mission wéru kor motalil koko ak leneen luñu ñu xamti kon jërëjëf ayca am solo torop il fallait ñu ñu commencer par ça waaw dafa am loo ci a wax d'accord euh, il parce que dañu génn weeru koor bi donc weeru koor bi suñ euh, dafay yoon ñu daal di rek rafraîchir un peu comme ni Serigne Saliou Samb wax ah, ah, ci jugee ci jugal gi suñu borom ak li nga xamante ne rek mooy temps bi nga xamante ne kenn ku ci nekk war nga war a mën a xam ne temps wu jaamu yàlla dafa am hmm. temps wu leneen ak leneen am ñu comme am ci compréhension ak li nga xamante ni tamit moom mooy diggante Cheikh Béthio ak Serigne Saliou ak surtout li nga xamante ni moom mooy weeru koor bi comme lu mu wax perpétré li nga xamante xamanteni moy jëf yi ginnaw ki nga xamanteni ni moy ah, soxna Aida mu ngi ci ah, kon dañuy ah, sante bu baax baax ndax nenañu kat ki nga xamanteni ni la xalil yoon bis bo démé ba nekkatoo ci yoon bobu so ci awul rek da ngay doon leneen lu bokkut ak lam la fi bayyi mm-hmm. kon sante yalla bu baax a baax ginnaw li nu mel ñu ngi koy dal di continuer waye dafa am laaj bo xamanteni ni avant ngeen di dugg ci mu ngi nekk sama xel ah mani mani Serigne salou sam bu ñëwé dina ko laaj dafa am ben xassida Serigne Bamba bo xamanteni ni mi ngi tuddu Euh, Sinjinji alors xasida boobu dama gis ñu ci bëri dañ dem ba def ko muslaay en fait dañ ko dem ba def ko am ñoo xam dañ koy takk takk am ñoo xam dañ koy bind di ko di ko di ko takk wala di ko jëfandikoo ak yu nu mel xasida boobu nag man daf ma xaw a yéem ma bëgg a xam tuuti rek nga cofal ma tuuti rek si xasida bi balaa ki nga xamante ne moom mooy Serigne Moussa Niang di ñu di ñu di ñu ko jàngal. waaw ah, jërëjëf soxna Fatima. Mm. ci laaj bu am solo boobu nga laajaat nga laajaat. xanaa wala ma ci ñëw sax damay contribuer sax ci lii la universel doon wax mm. muy mission bi Sëñ Béthio ci weeru koor mm. ni muy ni muy mottali la weeru koor mission bi ko fendi mm. xam nga yàlla ci jëm boppam sax benn mission rek lañu indee ci kaw suuf muy ñu jaamu ko waaye benn benn benn yitt rek la am ci ñun mooy defar nu ndax dafa bëgg doomu aadama doon koo xam ne laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiimin ba pare mucc nag ci summa radadnaahu asfala saafiliin loolu rek ci la nit nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nu ne jaamu yàlla yi ay solution la rek mooy hmm. kun tàbbal ci dara di ko ci wutal ndimbal hmm. ngir rek mu mën a àgg ci objectif bi ñu koy yóbbu moo tax dañ ñuy dimbalee woor nag asak aj ngir lan mu doon lu nuy puus ci liñ bëgg nu àgg ci rek waaye nit ku defaru rek moo ñor yàlla moo yónni yónni moo tax mu yónni yónni tey moo tax mu yónni xutba yi comme ni mu la ko waxee hmm. moo tax alayhi salaatu a wax na ci addis boo xam ne Seydina Abu Seydina Anas moo ko nettali dafa wax ne inna min xiyaarikum ahsanukum axlaaqan mhm. bu ngeen bëggee xam ki gën ci yéen daal mhm. jërul ngeen di xool ki dàq jullee ki dàq woor ki dàq nangam ak ki dàq tari ak ki dàq tari mhm. ñu ne ko nun koy a la gën a rafet la ay jikko yooyu biir ak yooyu biti yonente bi nee na moo kon loo cay déggee résultat yi jaamu yàlla yi mi ngi feeñe ci ak defaru mooy ci comportement ci jikko ji rafet kon nekkte loo gën a ñaawi jikko boo dàqoon a jaamu it amul résultat mhm. ndax inna akramakum indallahi atqaakum fi mu toll nii ñun ñëpp bëgg yónente bi rawatina Sénégal fu ne koo tudd boo ne yónente yónente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gi xaw na laa ndej mhm. ndax bëgg gun ko bëgg a tax nag moo tax ñu julli ci moom mhm. ñëpp ko bëgg waaw alayhi sa wa salaam wax na ci hadis boo xam nee na aqrabuhum ilayya wa ahabuhum minni majlisan yawmal qiyaamati ahsanuhum xulqaa nee na ki ma gën a jege ci yéen te gën maa sopp ci yéen te yowmal xiyaam moo may gën a jege ca fa may toog xam nga ku ne boo sañoon yowmal xiyaam mbokk ñiy jege yonente bi hmm. yonente bi nag mu wax leen ki ma gën a sopp ci yéen ndax yéen ñëpp bëgg ngeen maa sopp ba noppi yowmal moo may gën a jege ca fa may ne ñu ne ko kan la mu ne mooy ki gën a rafet ci yéen jikko hmm. nekk ku la gën a rafet ji moo la gën a am résultat am jaamu yàlla dafa rek ko fendi yaa gën a ah. nuru yeneen bi yaa gën a nuru yeneen bi ah, ah, moo ko xool ba yàgg mu ne ko Aliyu hmm. mu ne ko am nga maa la yëgal ne kenn nit ko defaroo ci yow hmm. xayru mina dunya wa maa fiihaa hmm. moo gën àddina ak li ci biiram moo tax Sëñ Saliou daal wax naa daara yi ma am yëpp su fekkoon kenn nit a ci defaru kenn nit képp jaral na ma ko sëñ Murtala nee na lu ma yàgg-yàgg ci tukki te kenn dong tuuboon sama tukki na mooy lan dañoo xam defar kenn nit rek lim doon moo tax mission sëñ Béthio nag mooy defar nit ñi mm. rawatina ndaw ndax ku defar ndaw defar àddina mm. ndaw ak jigéen ku mm. leen defar rek defar nga àddina moo tax mission daa gënoon a ciblé ci ndaw ñi looloo tax ay millions yi nit la defar maanaam li jaamu yàlla doon jëriñ ci nit mm-hmm. li taxoon jaamu yàlla yi ñëw mm-hmm. gisoo koor sax nee na la laxal lëkkum te takkuun te defar gi sax waaye dafa mel ne defar gi du la rek jegele la rek ak sa suñu borom déedéet mais dafa nekkoon koo xamante ne xëy na daan dala daan dimbali ci ak réer goo goo réeroon daawoo jàng wala arrêté nga sa jàng mu fayal la nga jàng euh, euh, euh, amoon nga ay jafe liggéey ak yu ni mu fexe ba ba teg la ci bërëb ñu ma daan dégg am ku daan wax ni Cheikh Béthio dafa dafa dafa dafa def mur maanaam dafa def mur si jeunes yi nga xamante ni dañ ko topp jeunes yi nga xamante ni dañu ànd ak ànd ak mm-hmm. xam na leen ne dañ koy dañ lépp leen jëriñ si spirituellement mais également ci li nga xamante ni moom mooy. mbirum àddina defaroo mel noonu defaroo yaatu mbirum mm-hmm. àddina. boo gisee yonent bi ne alxalqu xiyaalullah ci hadiis qudsi loolee moom ñu ci bëri mm-hmm. ahabbuhum ilallah nee na mm-hmm. moom yàlla mbindeef yi ñooy ak njabootam ki ci gënal mooy ki ci ëpp njëriñ ku gën a jëriñ mbindeef yi nii ëppal leen njëriñ bul werante moo ko daraja ci yàlla moo tax mu ne bu am ma maayeen foofa naat fayam ko sa filaat bi nit nit digg nit ñeenti boo ko bëggee defar ñeent yëpp nga koy defaral su fekkee am nga capacité bi. Mm-hmm. bu fekkee ne mënoo matale ñeent yi ku mën a defar lenn nga tële lenn. Mm-hmm. nit daa am diggam ak boppam da ngay fexe ba defar diggam ak boppam. Mm-hmm. am diggam ak ay moroomam mooy moroomi jaamam. ak diggam ak àddina ci boppam société bi di àddina. nit da cee am ab waaram. ak diggam ak boroomam. ñeenti mbir la yoo xam ne benn bokkut ak moroomam. àdduna si bul defee yàlla dana fi indi nii rek. mu wëlle si ansaakum wastaxmarakum fiihaa lan wax. ca ca sooratu Huud àdduna dama koo sos pour yéen yéen a ko war a defar wala tufsidu fil ardi ba'da islaahihaa defar naa ko te bu mu yàqu mm. kenn ku ne ci ñun nit ñi mm. am nga benn waar woo war a bay ci àddina ngir àddina gën a jag mm. boo fi deful dara daa am loo waroon na mission boo xam ne ko rate mm-hmm. sa digg ak sa bop yi am lu ci war mm. sa digg ak jaam ñi am loo ci war sa digg ak sa borom am loo ci war mm-hmm. motax defaru ñaan ko tarbiya mm-hmm. tarqiya tasfiya mm-hmm. li tax mën ta ñak ben moy tarbiya sa digg ak sa bop la tarqiya sa digg ak sa borom la tasfiya nak moy sa ak société bi ak société bi jëm bu sëriñ na lay def motax seen becco talibé mi da leena dimbali ci saahir dimbali leen ci mo na dimbali ci walu adina bu jagee mooma hmm. danoo dimbali ba ñii ku doon njàng ku ne moo fexe sam njàng yegg waaw waaw te nag moom taxawoo suñuy njàng sax booba suñuy bëgg sax taliwuñ ko woon noonu doon te bëggoon nañ ko hmm. ndax élèves yoo xam ne fukki dërëm yéen passé dem dem dem dem dem dem école wala dem université étudiants yi amuñu ko woon hmm. nit ñi sax taluñu leen woon bu baax ngay toog ñoom ay nangami waxtu ak dee di leen may heure yoo xam ne ki sa bopp ak temps ni mu seere dégg nga leen jëriñ wax ci temps ah. waaye daana def ak ay élèves ay étudiants ah. yoo xam ne ñoom amuñu lu ndékkee ah. mu def ñoom ñeenti waxtu juróom fanaanoog ñoom jox leen importance booba lu tax mi ngi leen di dimbali kenn ku nekk ci nun bu réussir ci njàngam mooma waaye yëmu ca waaye not yi sax da leen daan wax naan leen addiyee not mooy andil ma not yu baax addiya nga xam ne maanaam addiya ji nga jox sa sëriñ yow mun la sa addiya na doon not yu baax la kay ñom élèves yi xam nañ ci dal mhm. di laaj seen jang fu mu nga xam ni nim nim nim leen taxaw way juri sa ag nu woon foofu mhm. yaa ngi dégg nanguutoon talibim bu ñak jom neena fu ab talibim di liggéeyee fu ne da bëgg mu doon fa ko excellent ko xam roy kay la fa mhm. yaa ngi dégg wërta doon kon fay xeb fo mëna nek fu nek da nga doon roy doon nga xam non noonu la lay encadrer ci sa àdduna ñu bari ci mbooloo mi moo bitim rew di top to seenum jang fofé ak di ko di ko lijjanti te noonu la lay dimbalee sa ak sa borom ndax moo tax nu bëgg serigne sall mo mo bu mbolam di yobbu ci seigne Saliou mu leen di xàmmee di présenter nga moy ragné mm-hmm. di yóbbu xelkom ñu mm-hmm. bari mm-hmm. ba ni doga a dem xelkom gerte gi ci kaw lañ ko doon set da xamuñu woon ne gerte gi suuf lay sax kon xam lu seen appétit waye seigne béccoo di nargan ci loolu ci liggéeyal seigne Touba ci bëgg seigne Touba waye di mokal xasaayit di mokal alquran gis nga ki exemple la lim man ci alquran ak xasaayit fim tol ni nii kaangee ken yobbu kenn ko dara mu salem dara waye ko def loolu seigne béccoo ci dara ni kon mom nim doon defere loolu moo fi indi woon islam dégg nga mën la laxalikum te taxoon koor loolu dong ko taxoon a jóg mhm. fa alhamaha fujuraha loo ca tegoon léegi wa taqwaha mhm. mu ne la koor kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala llaziina min qablikum laxalikum tattaqoon mhm. xanaa xam moom eh, leçon bi koor di gën a jàngale mooy nangu ndigalul yàlla ndax bi ñu firi taqwa dañu imtisaal awaamiri wa jtinaabu nawaahi mooy ko nangoo topp yàlla nangoo bàyyi tereem jëfi ndigalam bàyyi tereem mooy bàyyi xel yàlla mooy wattandiku foo toll sa xel àll da ci ne hmm. seen mbékke nag loolu da koo def ci taalibe yi mu doon permanent muy hmm. nekk ci ñoom weeru koor wi lim la ci wax ci diggam ak seen becco hmm. yërmande jooju sax day wane ne nekkete weeru la ko taxoon a jóg la seen saaliw symbolisé ki seen becc ndax lu mu tëjee fukki yu ñu mujj yi xit xun mën naa ni ko la gis de màgg ne la xam de màgg bu hmm. ñëpp demee àjjana kenn doon demal sawar bàyyi ko nag ba bisu leetu xadir yi bàyyi ko bu guddig leetu te leetu xadir yi xulamaa dañoo wax ne ñi ci ëpp dañoo wax ne ci fukki yu la ci fukki yu mujj yi la hmm. waaw <laughs> te leetu xadir rek ko taxoon a ñëw hmm. nga xam ne kon nga gis ne kon seen Béthio résultat la moom moom li mu def ci te ba àddina xew léegi mosoo gis ku réussir lu toll noonu. ak ku jariñe noonu àddina. ku jariñe noonu àddina mosut aussi bien sur le plan spirituel. Mhm. que sur le plan temporel. loolu mosut mhm. ba a mhm, ba taxale ko ak yàlla te yorul dërëm tamit. waaw eh. loolu lu muy baax baax tamit. Ah. waaye sa waay mën naa sonn ci àddina. ndax di gis koo xam ni ku sori ci yàlla te ñaari dërëm yoru waaye sëñ bi dalay dimbali nga am ngeerumul yalla par mu sampal le keur hmm am dagal la pak ñepp mo ne takal la soxna ngénte say doom yëkkati auto jox la mm-hmm. de la joxe mbub waaye liggéey boobu it non mu ko waxe non la ko sonay di Saliou di continuer saa su ne koor gi mm-hmm. xamna naa mm-hmm. eh, moom da doon médiatiser ay mbiram nak gis nga jëm ngom joo xamne ne ku kooku ku xam la fi ne yow mi bu la joxoon aw nak bo ñewé diko sam dang koy déranger bëggul sa gëri jëf mom non la mel day bëgg limi def ba sañon kenn duko xam lolu mo waral sax ngay laaj lu mel nii waaye fi ne ay xéewalam waxuma la këram. Mhm. waxuma la ak njabootam waxuma la ay mhm. taalibeem waaye pétition yi est ce que tamit jotul jotul jotul mu gën a mu gën a active présente maanaam les œuvres en fait œuvre yi nga xamante ni tey ngi ko doon def mu toppaat ci di ko def. yi nga xam ne seen bekk da koo fësaloon. waaw yooyu da koo fësal. waaw ndax diggam ak gi ñëpp xam nañ ko. Mhm. ba seen bekk doon def na fukk. te day gën a yokk diggam ak gàmm gi ñëpp xam nañ ko. diggam ak 17 avril ñëpp xam nañ ko. xasa yi deg alxuraan yi ñëpp xam nañ ko ndax loolu faydarul bi la mhm. dana fàng mhm. waaye yeneen yi nga xam ne nag moom yëfi yëfi yëfi ndimbal la jëm ci nit nee na mhm. kuy dimbali nit da nga koy suturaal la yàlla dimbali ndax nee na dimbali nit ba na ko weer ko nee na loolu bokkul ci ndimbal maam ñëw andi nit ndimbal sax filmé ko nee na nee na loolu bokkul ci sutura ne dimbali nit weer ko la xam ne kooku ku defaru la kooku ku yàlla dimbali la seen bécco ko waajale noonu waaye ay xéwal la moom du dakk far foo ko fekk rek moom ci wàllu dimbali nit ndax yërmande jee bari mm. loolu yi da ko wax sin bécco ko wàll léegi bu dee sin diidi nag wax nga léegi ne nit ñi dañ koy def kaaraange mm. waaw wax na dëgg sin diidi moo di kaaraange jëm boobu maa xasida yi seen tubaay mm. yoo xam ni dañuy faj aajo di musalee di dimbilee di yërëme di moom di aare waaye sin diidi nag moom euh, seen tubaay ci moo ci def kaaraange goo xam ni bu dul sin diidi nam ko mane keneen du ko ni mane ndax lépp loo waroon a ñaan ci war caa mucc te sam xel sax wërtoon a xam loola hmm. sëñ Tuubaa ñaan na ci yàlla mu musal la ci xam nga nit sax lim lim ragal hmm. ba di ko musul da koo xam hmm. xam nga li nga ragal da nga koo xam ba naan yàlla musal ma ci nàngam waaye loo xam ne dalaa mën a lor te xamoo ko noo ciy musloo sindiiri nag dalay muslul ci li nga xam ba mënoon caa ba noppi di la muslul ci li nga xam ci te waroon caa muslu ba noppi ki koy def ci làmminam lu mu wax yàlla def ko mu Sëñ Tuubaa moo tax baatab mooy sang yonent bi lay symboliser nag. Mhm. ndax da ciy def ay tawasulu di ñaan ci daraja yi borom tur yu mag ya mhm. ak borom daraja yu mag ya ngir li muy ñaanal mbindeef mi koy jàng. Mhm. man koo dal. ndax ñaan ma ngay gën a gaawee ci nga ñaanee yàlla kum rus. sëñ Tuubaa danoo dimbilee nu ne. yaa deg mhm. legi nak ñim doon tawasuloon nak seen kilifa ga ya moy yonente bi alayhi salatu wasalam motax mhm. mu jël sax qasida gi symboliser tur woowu mooy mhm. as-sindiid xam nga jamxu bi moy sanaadiid sanaadiid dégg nga sanaadiid al anaam waaw ulul hasmi sanaadiid al anaam wal wahyu lil jami'i kana fil manam ila ulul hasmi sanaadiid al anaam mooy sanaadiid mooy pluriel sidid siddiid ah, moy moy sang ya de nga ci biir xasida ga wa dammiran kulla ahda in tudurri bina xablal wusuli lana yallaaw yallaaw de na karangi wa dammiran ma alagal dóoral mudana mboxañeel kulla ahdain bépp noon bépp noon boo xam ne toujours rébinaa bu nuy lor si la waaye waxuma nag nga bàyyi ba mu ñu ñu songoo ngay doog a ngay doog a dox sa digg ak moom xablal wusuuli naa njëkk mu yegg si yàllaahu yàllaahu na bari na xeex boo xam ni nag ba nga koy atte fekk na wax dëgg yàlla ay ku jàll na soo ngi dégg <laughs> yooyu day am sëñ Tuubaa nag dani noonu buy lor yow yàlla bul seetaan ba mu dugg si ngay doog a intervenir avant muy fadal mu daanu bu mu jot a mos bu jot a bu mu jot a mos dara waaw bu mu mos ak tawil lanaa humranaa saxix lanaa badanaa wa yàlla tawil lanaa yàlla tawil lanaa yàlla nga guddal humranaa ah. sunu dund yàlla nga la may gudd fan mhm. saxi lanaa badanan te boole ko wéral sunu yaram mhm. xam nga gudd fan doon tukku wér amul solo amul waaye wa hab yàlla nga nu may ak njub ak njub waye wa tawfiixa lu dug nañ ca dajeeg tawfiq yalla ko yow yàlla am ndeysaan nga xamni manam lim lay ñaanal ihanatin qillatin mazillatin xalatin wa faqatin khatasin wal juhi yàlla wal juhi yàlla wa fitnatin wal waba wal harqi maxxaraqin wal barqi maxsaraqin wal kaddi yàlla ko sintuma tangor way lore sedd buy lore angana am pes wopp juy wàlle yaa ngi dégg nga xamni fitna wal wabaa mooy mooy mooy la xew léegi mbas corona mi wabaa la sin baa ngi koy tudd wallaay ndeysaan wal mooy ku lakk mooy dee ci lakk dee nag mooy lab gis nga lori ndox yooyu boo doon ñaan sa xel ma na bañ a waaye wal xarax yi nag melax nekkete melax am nag lor waaw yéen jàng xam ngeen loolu yaa dégg waaye max saraxin ayu sàcc waaw dajale say yëf ba dajale ko yaakaar koy benn waaye ñëw ne ko toog ne daa métti sëñ Tuubaa sax ñaan na yàlla mu musal ci ayu sàcc <laughs> moo tax moom solution la indi solution la sëñ Tuubaa solution la indi moom moom daa raw xel Mm-hmm. Mm-hmm. solution xam nga loolu ko doon ñaamal nga ko fàtte ndekete sàcc mot naa ñaam solution la indi waaye walkat bi ak coono solution la indi fi ne nekk coono daa mata musulu fi ne ñu bari dañoo fàttee ñaanaale mucc ci coono moo tax seen adduna day sonn rek pour wax la rek ne la sëñ Tuubaa kenn xamul lu doon rek moo tax xëy jàng sin gis rek na doyat na moo tax mos ci ab kilifa dogguma la muy naan sëñ Tuubaa da leen mës wax ni boo leen jàngatee lu ci ëpp yéen boo leen fase boo leen feccee nguut lay doon mhm. waaye man bu fekkee maa fas boo leen feccee wuus lay doon mhm. wallaahi wallaahi mu ne kon bàyyi ma leen di fasal moo tax ñun ndax lim lay dee lim lay defal ci xasida gi mhm. yow boo doon ñaan sax doo ko am dégg mu détaillé nii faaxan xasaa idal kiram waaye wali taqud abadan xayral maram ngën gi sàkkuteef loo xam ne yow boo doon sàkku sa xel du ci yegg loo xam ti ko loo lay defal Ah. xam nga ñun boo doon muslu doo doo sa xel du dem ci xarin wa bardin nag wa nax bin kurbatin ni xamin ah. dalaalatin xarajin wal xami yàllaaw ah. xarin ay wi ciw tàngoor nag ñu ci musal ndekete aw tàngoor am na roor waaye bardin ay wi ci sedd sa xel du ci dem kurbatin njàqare ndekete njàqare lu moom daf ko tënk yëpp rek mais dalaalatin nag fi nit ñaa ngi ñaan te duñ ñaan mucc ci réer réer a gën a bon mm-hmm. waaye xarajin mooy laago mm-hmm. sëñ Tuubaa sax musluwaale na ci yàlla ci ayu laago mm-hmm. ndax laago lu métti la ndax da da lu métti la. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. waaye war xam ni bépp njàqare. Mm-hmm. maanaam daal sin dii di fi mu ne. loo xam nee naa la lu sa xel waroon a dem ci nga war cee ñaan yàlla ngir musal la ci. sin bi ak loo xam ne yow sa xel mënu ko war a xalaat ba di ko xam. ba di ci muslu te matoon naa muslu. kon wo kon ñàkk koo jàng ëpp naa def sin waa solution rek la solution rek sin dii ku ko ñàkk mokkal waaw mokkal ko dafa dafa jaadu te nag ah. bul defee ni. Ah. aare rek lay def de déedéet sëñ Tuubaa moom. da dul indi solution boo xam ne mel ni mbir lay solution. sëñ bi daa ko loolu. maanaam moom soigne tout lay indi. waaw kay soigne tout soigne tout lay am. loolu lay def. soigne tout fi ne ni lay musale noonu la lay mosale. waaw mhm. mucc baanut ak mus. Mhm. ah du mën a baax de waftax lanaa kulla baabin. Mhm. kunta faatiha li saalihiina minal. xayraati yàlla loolu mus la. Ah, naa lanaa ubbil nu. waaw ah, waftax lanaa yàlla nga nu ubbil nag léegi. kulla baabin kulla baabin bépp boo xam ne kunta nekk nga yaw yow ubbi ubbiloon ko. lil xayraat te muy buntu yiw nga ubbi loon ko li saalihiina mboolem buntu yiw boo mos a ubbil sa waajo baax joo nangul hmm. buntu yiw yooyu yooyu yàlla nañu ko ci ji maanaam koy ñaan ubbi ko daal waaw moo a gaaw kon mos ak mos mus ak ak ak ak mus mucc ak mucc ak mus la donc donc di xëy di ko di ko di ko di di ko wax mokkal ko xëy di ko wax am na solo trop euh, sëñ Moussa Fall Diaw lan nga ci lan nga ci baax boo ko ma la sax bala cee dugg waaye Moussa mhm. ni maanaam boo boole woon mucc ak mus hmm. Hmm. te tëguwoo ci yoonu yàlla sa dund day perte hmm, ndax bu boobaa ak sa àdduna dana baax waaye alaaxira dul baax waaw mu ne ko wasluk binaa nax jërus din wak fi naa sa lalan waxturu lanaal jinna wa seytaan yàlla léegi nag wasluk binaa nax jërus din bu lii lépp amee ba nag sóob nu nag ci yoonu njub wax fi naa sa lalan loolu lu mat a ñaan la loolu ku koy xalaat ba koy ñaan boo ni ci sóobee muccee nu ci tarxiis mhm. bari na ku sóobu woon ci yoon yàlla ba yàgg mu tarxiis ci biir yoon wa mhm. génnaat ci benn seytaane tarxiis loo ko mhm. ci ay yëf-yëfaan wala mu dem ba yëg boppam wala wala wala mu ne ko moo tax mu moo tax mu tëjee ko sax loolu nga wattur naa jinna nag nu dàqul jinne yi wa saytaan ak saytaan yàlla ah. yow yàlla boo ko doon détaillé daal da ngay xam ne si mbir rek mat na waxtaan يلاه بالمصطفى سنديد يلاه وبخليلك إبراهيم يلاه يلاه بالمصطفى سنديد يلاه وبكليمك موسى سالين يا الله وبكليمك موسى سالين قدر وبسعيد وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس يسعي وزكريا يحيى أودي الله هارون يوسى ياسين وآدم آدم ودزل كفلي سالوت يا الله affaire élève étudiant ak ni nga xamante ni noonu ngeen doon jëflanteeg ki nga xamante ni mooy ku tedd ki di Cheikh Béthio est-ce que mën nga ñu si ñëwal tuuti ak lu nga xamante ni xëy na def na ko si yéen ah, parce que xëyoo xëy rek mokkal xasida yi. Mhm. barke sëñ Béthio waaw soxna Fatima ñoo ngi santaat bu baax. Mhm. sëñ Béthio mhm. di bégaat bu baax ci laaj bi nga nu laaj. Euh, wax dëgg yàlla nun dey Eh, ay taalibe sëriñ Béthio lanu mm-hmm. jébbalu ca moom ca ba ni ndaw mm-hmm. ànd ak moom mm-hmm. di teew ci daara yi ni ko suñu universel yu baax yi waxee léegi ci daaram yii ci lañu wattoo xasaay ci sëriñ Tuubaa yi ci daaram yii ci lañu dimbalee ba lépp lu nu mën ci alxuraan ci lañ ko mënee eh, demunu nag daara yi nu xam traditionnellement mooy daara yooyu nga xam ni da génn sa fër wëyju mhm. dem daal di dem ci àll ba mhm. daara nag mooy daara yi sëriñ Saliou ni sëñ Béthio mhm. sa daara yi nekk sow ak sama daara yi ne xel kon utelu ma leen lenn képp la lu waaye di sàkkoo ci sama daara yi bu ko sàkkoo ci sa daara yi am fa yi daara ci lañu toog euh, ci lañu mokkale xasaay di ci la ñu lepp lo xamni xam mën nañ ko ci alquran euh, muy mel ni it euh, ba ñuy élève ànd ak moom ni ko universel jamono kat yorunu loolu lo xamni ni ab sëriñ dina ko xemem dina ko xemem ba wara mëna takko ñun mhm. ndax bi ñuy étudiant fi rek li nga yor ci bourse boo ci dundé jënd ci cours paas ci naka la ngay déssé ca mom na mu lay na mu lay joxe yitte jox la nopp loola du koppar yoo fa yóbbu waaye dimbali nit ñee ko yor ndimbal loola nag moo tàbb ci ñun ñun nag fii ñu ci féete mm-hmm. muy xasaati sëriñ Touba yi nga xam ni ci ndigalu sëriñ Saliou mm-hmm. mu digal ko sëñ Béthio ne ko neel sa taalibe yi nanu fonk xasaayit Serigne Touba yi eh, soxna Aïda Saliou dëgg dëgg jëmmam ji mm-hmm. daal di yeesalaat ndigal loolee ci ni sëriñ bi tëralee ñun ñu féetee ci kër sëriñ Touba sunu ànd kook sunu sang sunu ndey ju tedd ci soxna Bator Saliou Thioune daal di jiite liggéey bi foofee ci Touba kër sëriñ Touba. wax dëgg yàlla liggéey baa ngi doxee noo xam ne. Mhm. ah soxna si xëy na àdduna day du lépp luñ mën a médiatiser. waaye day nam fay doxee. ndaw ñi di ko ni mokkale xasaay. ndaw ñi di di fonke ni xasaay. ndaw ñi di ni jàngee alxuraan karim nga xam ni bés yëpp lañ koy jàng waaye bësu àjjuma daa bokk ci bés ci gën a ràññeek nga xam ne kër sëñ Béthio boo dem mbooloo mu mi fan la ñuy yendu di yendoo jàng alxuraan di yendoo jàng xasaay mm-hmm. loolee may wax nag euh, nettaliwu ma ndax man mi ma jiite liggéey ba mm-hmm. nga xam ne àjjuma ne àjjuma ju ne kër sëñ Béthio joo dem mm-hmm. foofa ngay fekk ndaw ñu ñuy yendoo ko tolloolee kat sëñ Béthio ko def ci ñun ndax vocation tubaab bi ku ne xam na ne ba muy jàngal mhm. ba njàng mu bëtt néewul woon ngir mu gëm sëriñ bi mhm. mhm. sëñ Béthio nag mooy lu kenn xamul ndimbala ma tàbb ci ñun mu fekk lu ci école ya ndax koo fekk ci école nasaraan yi dindi ci moom tooke gi nekk ci njàngum tubaab samp ci moom ak taalibe saxal ko fa di ko fa suuxat ba mu mën a jeddi ba jur lii mu jur loolu day. cey sëñ Béthio ku xam ni day. Mm-hmm. sëñ Béthio day amul dendandoo. waaw amul dendandoo gi kat loolu dee su ko wax di kii waaye ni nga koy waxee mooy ay jëf la. Mm-hmm. yooyu làmb di daj. c'est du concret. Mm-hmm. c'est du concret ni ko tubaab di waxee. ndax ci école nasaraan yi. amoon nañu yeneen yii ni dooni taal bi waaye sëñ Béthio boo dajeek moom da lay formaté la nga jàppoon mooy xeeñu tubaab nara dooni tubaab da koy dindi xeeñal la murit safal la murit def la cantaat ko. Oh, góore noonee oh, la ñu def ñu ciy santaat bu baax hmm. ñaanal sunu ndey ju tedd gi soxna Aida Saliou Thioune mu yàgg fi lool amiin ànd kook ñaari buntami ñaari am yi soxna Batoor Saliou Thioune ak soxna Adja Saliou Thioune